ci Sénégal arrêté bi nga xam ne ni Ousmane Ngom ci jamono mu nekkoon euh, ministre de l'intérieur amaloon ko ne daal lii nga xam ne ni mooy doxu ñaxtu yi ak tamit euh, yu ni mel dafa am rek euh, fu ñu leen yemaloo wante tamit am ñu na ba arrêté booba sax mu am jiixi jaax ci bopp nit yi wante tamit am ñu koy naqarlu parce que nee nañu daal li nga xam ne ni mooy arrêté bi lee dafay salfaañe lenn ci ak ak yelleefu ñi nga xam ne ni ñoom ñoo féete ci kujje politique gi tax na sax ñoom ñi fa féete yëkkati nañu arrêté bi leen ni daal euh, dina am rek benn euh, xalaat bu ñu war a samp ci diggante ñii di force de l'ordre yi ak euh, manifestants yi bu ko defee kenn ku nekk di ci am benn jafe-jafe Abdou Diouf moo ñu defaral lii di chronique bi. su fekkee ne constitution réewum Sénégal nangu na ñaxtu ci kujje politique gi saa su leen soobee lii am na ab gàllankoor ndax fi ñu leen yemloo te waruñu ko jéggi as arrêté Ousmane Ngom nekkoon fi woon ministre de l'intérieur moo ko tere ci atum 2011 ba lii tax na ñi ko bëggoon a jéggi barki démb waa Manko Wattu Sénégal daj nañu saxaaru bomb lacrymogène yu leen takk der yi sànni daldi tas ndaje ba coow li na mër bari lool ku nekk fi nga féete di indi tuuma sa morom war nañ fee ñaxtoo ci dégg waruleen fee ñaxtoo ci lu dul yoon li mat a xam mooy arrêté bi ba ka maître Ousmane daan teg ci taabal bi dafa fekkoon ne réew mi jax lool ba ëpp dayoo population bi taxaw temb jóg bëgg fa si wutali pale ba sempi nguuru Abdoulaye wàdd ngir yemale leen ci la arrêté bi juddoo ñaari mbir daf cee am ci sama xalaat benn ñi nekk ci nguur gi tey daan bañ ba tëdd ci naaj wi arrêté Ousmane Ngom bi ñoo koy dawal ci askan wi tey ñaar ñuy yuuxu tey di opposition bi di mànkoo wattu senegaal ñoo ko fi indi daan si dóor ñi nekk ci nguur gi tey cay politique moo metti ana fu dëgg féete wala fi naan ku xëcc jëmale ci sa boor mu dëll fii nag ñu bëgg ñaxtoo moo gën a am solo ci ndakaaru ndax fi la administration centrale nekk banque yi ak ñaari hôpital yu gën a mag ci senegal ak yeneen ak yeneen fii su doxul ndax ay ñaxtu yu dul jeex économie réew mi day taxaw li mat a wax te am solo mooy nañu delloo ci xel yi muy nguur gi di kujje gi ndax politik balu tenks la nga dóor ko ci miir bi dina mësa a dellu si waat ci yow def lu dëggu rekk te jub moo wóor ak ci ki mu munti doon bi la des ba tey